waxtaan tàggat tàggatu euh, yokkunte ci lépp lu jëm ci mbiru kaaraange xale yi kaaraange xale bu ñu koy wax bu ñu nee jàngalekat dañuy jàpp dongo yi nga xamante ne moom lañ leen dénk waaye nañ jàpp ne jàngalekat bu ci nekk borom kër la dafa yor njaboot uuf njaboot kon kaaraange xale yemul rek ci dongo yi dongo yi nga xamante ne ñu ngi ci biir euh, école bi li ñuy waxtaanee ak ñoom mooy xeetu këf yi nga xamante ne danañ koy faral di def jël xale yi sàkku leen yegg ci ñoom mu doon loo xamante ne njeexital bi kenn mënut a natt fan lay yem dañoo jàpp ne booy tàggat nag da tàggat ñi nga xamante ne xëj na suba gu jot bu ñu xëyee ñu ngi ci gone yi bu dee da ngay wax kaaraange gone taamu jàngalekat yi dañoo jàpp ne ñi bu subaa ñu ngi ci xale yi bu ngoonee ñu ngi ci xale yi amuñu guddi amuñu bëccëg ci mbiru xale yi la ne ku kaaraange xale yi yittal nga am loo bëgg def pour dooleel ko kaaraange googu dañoo yaakaar ne booy tàggat war nga cee boole ñooñ kon lii ñu def tey ak kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk éducation bi ci Tëngéej dafa bokk ci liggéeyu avenir de l'enfant waaye dafa méngoo ak gis-gisu kilifa yi nga xamante ne ñu yore njàngale mi jàngalekat daal warut a doyal ci sàkku xam-xam fépp fu lépp luy xam-xam rek war na ko mën a jël ngir ëllëg ñañu koy jox mu xam na mu koy jariñoo ndax waxuñu ne nit ki na am diplôme waaye njeexitalu jàngale bi mooy xale yi nañu am dëgër laay nañu xam nu ñuy tooge nañu xam ñooy ñan nañu am lu ñuy wax diñte ci seen bopp. ñun de loolu dama dama koy wax ci anam yu leer nañ dégg-dégg lañ ci am le module yooyu und dëggaaneex yàlla amuñu ci gis-gis amuñu ci dégg gisuñu ko dañoo dégg ci tasukaay xibaar yi rek ñu wax lu mel noonu ñu jàpp ne xëj na. ña nga xamante ne ñoom ñoo wax am na fu ñu wéeru ci lool waaye lii ñuy def de tàmbalewul tey di tàggat jàngalekat yi ci yan pexe la ñuy lal pour mën a aar xale yi ci bépp fànn nag lay wax bépp fan dooleel leen ñoom ci nan la ñu mën a gën a uufe seen njaboot te dongay dongay bokk ci njaboot gi dama ne tàmbalewul tey la nga xamante ne nag moom la kilifa yi wax ne loolu moom la ñu dégg wala loolu lañu ñu waxtaane xëj na ñenn ñi leeral nañ ne euh, déggin yee wuute mais ñun de lii ñuy def ni tàmbalewul tey te dañ koy wéyal. waaw dama yaakaar ne bu weesoo parents yi bon pour génne ci enseignants yi dafa warul la mën a nekk sax parce que enseignant d'abord bu nee enseignant rek dafay ëmb sax parent bi dafay ëmb euh, sëriñ bi dafay ëmb kilifa gi donc euh, enseignant bi dafa nekk ca tàmbali ba ba ca mujjanteel ba mënu cee bañ a nekk. enseignant mom ak xalé bi nga xamné ni mom la tubab bi wax centralité manam ci le lepp depo ci mom je pense que né ñom ñaar ñoy ñi nga xamné ne euh waru ñom mëna ñak ci pérécourse gi manam donc enseignant bi mom vraiment euh mom moy moteur bi s'il le faut même pour euh, processus mën a déclenché